salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñëw yaa ngi ci yëglekaay bi tey le 27 novembre 2019 yëglekaay bii di sunu lamb dafa ñëw ci forme bi nga xam ne moom la Modou Lo affiché Khadim Gadiaga nag ne Modou Lo dafay entraîner pour bépp mbër guy gi Sa Thiès Garga Mbossé ak rëg-rëg yëglekaay bi daf ñuy laaj ban adversaire moo ci war a daje ak moom mooy Eumeu seen Omas Diagne kat nee na ci yooyu adversaire guy gi daal mooy koo xam ne moom moo gën a mieux placé wu pour mën a daje ak Eumeu Sène waaye Pape Seck coordinateur bu Fass nee na daal Alioune Sarr ak équipe ñoom ñëpp ñoo fi war a jóge choc des espoirs nag dañu ko prévoir le 15 mars bu ñu ko waxee mooy ay yaakaari làmb lañu diggante soq ak Gammo Gueye dem daal lañ ko régulariser te CNG de lutte Serigne Ndiaye 2 ak ëbbali daje nañu ñaari yoon Serigne Ndiaye daan ko ñaari yoon kon dafa mel ni Serigne Ndiaye mooy mëne 2 à 0 ci nga xam ne moom moo di Ibou Ndiaye bu Diofior waaye Khady Diouf mi nga xam ne Mbayang Loum da ko bàyyi woon Adrien Senghor da ko assuré moom Khady Diouf def fay lu rëy rëy wooy lu neex waaye nag Mbayang Loum ba ma ba mu ñëwee fi nga xam ne moom mooy gaal gi dañu ko tàccul tàcc yu bëri parce que moom kat xam nañ ne boykat la boo xam ne lutte simple bi dañu ko jox cër baaboy nag doon na koo xam ne dafa am mbetteel lool ci li nga xam ne moom moo di defetu turandoom mi di petit baboy dimanche bi passé ñi ñëw ci record record nag dafa ne Sa doon na ci situation nekk na ci situation boo xam ne daal doy na waar ndax ñaari defet yi diggante Malick Niang ak Boy ña ba pare nag mu mel ni mënul am lii di adversaire adversaire yi daal boo xoolee dafa raar waaye rëg-rëg mu ngay préparé wu ak waa GIGN loolu moom doy na waar ndax rëg-rëg bu demee di préparé waa GIGN moom xam naa ne am na lu mu nar waaye Amoura Sarr daal nee na gisul benn mbër ci Sénégal boo xam ne moom moo gën a taxaw kii di rëg-rëg ñu dem ak yéen ci leewtoo point net Bombardier mu ngay remercier maanaam daal di sant ka gërëm mboolem acteuru lamb ak politique yi ak acteur artistique yi nga xam ne dañoo ñoo bokk ak ñoom tiis bi nga xam ne moom moo dal ci kawam di magam di Pape Dia ñu koy ñaanal waaye nag nee na moom Bombardier semaine bii di ñëw daal day jëlaat lii di ay entrainement mobile bu Grand Yoff mbooloo kat moom tam delloo na lii di xaalis ba mu amaloon kii nga xam ne moom moo di Fallou Ndiaye après ba mu demee États-Unis ba ñëw ndax ca tournoi TFF ba am na lu mu ko ameloon loolu ñu ngi ko jiyee ci Leewtoo point net waaye lewto TV rëg-rëg daal wax na fu lu doy doy waar nee na daal kii di guy gi amul loo xam ne moom lay wax ak moom parce que respecté wu ko waaye nag nee na moom rëg-rëg am na secret yoo xam ne ñoom la war a daane ki nga xam ne moom moo di Bombardier bu fekkente ne boobu combat taxaw na kon lii lañ leen indi loon ci yéegalikaay li jërë ngeen jëf mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu leen gërëm leen sant Birame ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Birame maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Ndeye Comba di nuyu mbokk internet yi di nuy ñuy suivre ci Leewtoo TV di nuyu équipe Leewtoo bi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm biram ñoo nag si sunu laam sunu laam dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Khadim Gadiaga président Rock Énergie moom nee na ki nga xam ne mooy roi des arènes mi Modou Lo mi ngi préparé pour euh, mi ngi entraîné pour mbër yëpp ku ñu ko proposé daal moom pare na xaarul benn mbër aussi xaarul aussi benn promoteur Mm-hmm. waaw Ndeye Comba lool moom euh, dañ ci euh, félicité euh, Modou Lo waaye tam félicité nga xam ne moom mooy président écurie Rock Énergie di Khadim Gadiaga parce que tam xam nga mbër bu fekkee da ngay préparé pour benn nit bu ñu la joxee keneen ku dul kooku boo watuulee di nga commencé waat yeneen préparation donc en tant que roi des arènes nag pour man dafa war a préparé wu ci mbër yëpp nga xam ne képp ku mënti doon ku ko làmb bool rek bu fekkee déggu am na ci staffam rek mën a bëreeg yow kii yi daal. Euh, Birame ni nga wax ren nag moom saison bi li ñuy euh, préparé mooy grand contre petit nee ñu nag petit bi nga xam ni moom la euh, Eumeu Sène nar a jox chance peut-être nee ñu xëy na mi ngi si diggante guy gi Sa Thiès Garga Mbossé wala Reug Reug mais Eumeu daal ki mu gis mooy guy gi guy gi daal moo gën a placé pour bëre ki nga xam ni mooy Eumeu waaw xam nga Eumeu Diagne xam nañ ko en tant que technicien xam ko aussi mu doon entraîneur doon entraîneur ki nga xam ne moo di Tapha bu waxee loolu am na fu mu ko teg parce que boo xoolee euh, grand contre petit mënut ñàkk ci làmb ji ndey Kumba parce que euh, làmb noonu la mës a baaxoo mag ñi bu ñu demee ba am tolluwaay bu ñu toll il faut ñu tàllal loxo ñi nga xam ñoom ñooy xale may leen chance ñu mën a yéeg fekk si leen fa ñu nekk te Eumeu Sène boo xoolee euh, pratiquement waxuñu ne mu ngi ci bunt ba waaye nag mu ngay jub si bunt ba donc bu fekkee ne dañoo war a jël grand contre petit au moins am na plein droit gis ne guy gi la comme keneen mën na am xalaatam ne Garga Mbossé la pourquoi pas Garga Mbossé pourquoi pas ki nga xam ne moom moo di rëg-rëg pourquoi pas Sa donc comme écarte nañu Sa ci seen staff euh, nañu xool euh, li Omez wax est-ce que bu ñu demee ci euh, staffu Eumeu seen ndax duñ ko def wala déet. dinaa bi tamit mi ngi dalal ki nga xam ne mooy Pape Seck coordinateur national de phase moom daal lu mu gis mooy ne nee na Alioune Sarr ak équipe nañoo war a quitter CNG ndax yàgg nañ fa. Euh, yàgg nañ di ko dégg ah <laughs> day kumba boo xoolee lamb ji benn ñaar ñett des fois nga dégg ay ñaar nit wala ñeneen waxee lu ni mel ne Alioune Sarr dafa war a jógee CNG nangam lii ak lii bon loolu duñ ci sori parce que xam nga CNG c'est le ministre de sports moom moo ko fay teg. ne Alioune Sarr yow laa woolu ci lii ak lii donc ginnaaw mu ngi am ci moom kóolute te euh, ay la bu ñu xoolee nag euh, suñu diggante ak yàlla bu ñu ko waxee CNG la mu defar bëri na malgré que xëy na am na ñoo xam ne nag euh, dañu gis ne la mu yàq moo ëpp waaye nag la mu defar bëri na donc saa euh, loolu moom bal bi dafay rester ci kaw ministre bi mu xool bu fekkente ne gan na ko wóor rek da ko fay bàyyi kon bu ko fa bàyyee tam non on n'a pas de choix il faut ñu ànd ak ñoom ca loolu te ñun daal boo xoolee lamb en général boo defoon pétition nga xam ne bëri na li nga xam ne vraiment CNG euh, wax dëgg si yàlla defar na ko ci daal. Euh, journal aussi mi ngi xamal combat bi war a am le 15 mars diggante Sokh ak Gamou Gueye régulariser nañ ko au niveau du CNG démb biram waaw loolu chocu espoir la xam nga soq gàmmu gi mm, dañoo ñoo xam ne dañoo ne ci bunt bi di fëgg bëgg am génération bu ñu fekki euh, loolu tam bu ñu xoolee espoir yi ndey Kumba euh, dama koy faral di wax espoir yi nañu leen jël di leen may chance di leen tëggal parce que ça ne veut pas dire que rek bu ñu tëggulee combat royal bi rek lamb di dox xam nga espoir yi dañoo doon ñoo xam dañuy drainer du monde bëri supporter amateurs yi bëgg leen fonk leen te ba saa boo tëggee seen i journée da gis day fees dell kon nag loolu euh, combat espoir bu doy waar la su ma jumul le 15 mars dañ ko prévoir xanaa ñaan yàlla yàlla yóbbuñ ci jàmm ak salaam daal. suñ jógee nag sunu laam nañ dem fi nga xam ne mooy record record na dafa xëy def benn jàngat euh, si euh, xalima Abou Nour nee na daal Sa Thiès ginnaaw mu jógee si ñaari defetam muy euh, moom ak Malick Niang ak ki nga xam ne mooy Boy Niang ak benn saison blanche moom daal nee na carrière daal mi ngi en daan si daal instant bi daal il faut que mu ñëwaat bëre am ndam pour mën a bokkaat si course bi biram waaw xam nga boo amee ñaari defet boole koog mu mel ni adversaire yi sottiwul kuñ ci dox sotteegul te bon boo seetloo sax la ñuy wax ci adversaire mooy diggam ak Eumeu Sène lañ jéem a dox moom la mu bëgg la wax lii laa bëgg waaye nag euh, bu toogee ami defet ba pare bërewoo bu raar bi yàggee euh, du ma ne dañ lay fàtte waaye nag euh, euh, xam nga woykat bi nee na kuy woddoo lamiñ boo noppee rafle donc moom mii di mbër aussi li ñu koy ñaax rek mooy mu fexe tendre la perche à d'autres adversaires yoo xam ne bokk la kamu daan laaj ba xam ndax danañ ko jël wala déet parce que tam bu bëreewulee dafay mel ni koo xam ne daal day suux donc loolu daal wax dëgg yàlla buñ sañoon daal moom mu bëre parce que tey mbër buy neexal làmb la kuy xumbal làmb la Hmm? ba pare nag euh, boole koog euh, bëre yu am doole yu yu moom bu daanoo boo seetloo jëlam yëpp euh, kii kii moom moo koy daan maanaam maanaam fuggam gëm boppam daw wut si la def lu mu war a def lu mu am nga xam ne xëy na loolu la donc nañ ko ñaanal rek moom mu am beneen combat boo ko defee daal ñu bañ ko fàtte ci làmb ji ndey kumba bi nga xam ne amateur simple nag mun nañ ko te niñ koy xaar mu ñëw bëri ci mooy Reug Reug amaana xëy na bëreegul lutte simple mais moom daal mi ngi préparé combat MMA bi nga xam ne mooy am le 14 décembre fee si Maris Ndiaye ne ñu journal bi nga xamal ni que moom fee lay entraîné si GIGN yi foofu lay entraîné kon bokk combat bi jël na ko combat MMA bi Reug Reug nag jël na ko au sérieux waaw xam nga MMA tam day day làmb joo xam ne euh, commencé na gën a siw nag euh, fii ci Sénégal parce que euh, at yi passé waxuma xamuñu ko woon waaye siwewut woon nii donc euh, bu rëg-rëg jëlee combat ñëw di entraîner ci GIGN ya euh, ah loolu day dañ koy rafetlu waaye xam naa ne rëg-rëg mii daal ragal naa ne buy dem di bëre ji MMA bi am cachet yoo xam ne mu ngi koy dégg wala mise yi muy dégg ci lutte simple bi ragal naa ne MMA bi duñ ko yóbbee waa Sénégal boo watulee dina retourner ñëw xool si lutte simple bi ni journal bi aussi mi ngi dalal ki nga xam ne mooy Ambroise Sarr Ambroise Sarr na soo ko ko déggee mooy coach ci équipe nationale de lutte yi euh, moom daal lu mu gis moom nee na gisul mbër bu nga xam ni moo gën a foor rëg-rëg. waaw loolu am na ci droit xam nga entranque tant que national yàgg ci nag. parce que per Ambroise Sarr yàgg na ci entrainement bi doon entraîneur yore mbër yi di leen yóbbu CEDEAO xam na qualité yi yóbbu na ku dul rëg-rëg bu taxawee na dafa yàgg si làmb sax en tant que lutteur en tant que entraîneur en tant que technicien waaw merci beaucoup donc boo boolee loolu yëpp jëkki ne rëg-rëg gisuma koo xam ne moom moo ko gën a taxaw physiquement ah am na fu mu ko teg parce que nag euh, xam na xale yi bu baax a baax te loolu nag ndey dañ koy dëggal parce que nag rëg-rëg nag bu caaxaan jeexee dëgg weesu euh, wax dëgg si yàlla mooy lutteur boo xam ne daal il a fait presque zéro faute Eh, biram na suñu jógee si record nañu dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net foofu ni nga fa dalal ki nga xam ni mooy Bombardier ginnaaw bu mu remercier ñi nga xam ne ñëw nañ ko jaale yëpp gën eh, ci génn manage magam mboobu di Pape Dia moom daal li mu wax moom nee na amaana loolu moom ak àdduna noo ànd mi ngi préparé saison mi ngi entraîné semaine prochaine daal dina dugg bu baax si entraînement bi eh, biram waaw euh, euh, li ñuy wax rek mooy euh, jaalewaat ko bu baax lu nu bokk muy Pape ja yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana gën a kawe bu remercier àddina bi yëpp war na ko moom Bombardier parce que foo ko fekk ñu fa dem ak ñi fi demul yëpp la ñu xam ci Bombardier mooy yar beeg teggin bi ba pare boo ñëwee mu dalal la wax dëgg si yàlla xam nañ ne magam laal na ko du trop waaye nag looloy àddina dañu koy ñaax rek mu retourné waat ci entraînement yi xam ne yàlla jeexul lu fi ne rek yàlla ko fi def donc bu ko jëlee yóbbu ko fa gën dañ koy ñaanal yàlla rek te moom Bombardier mu retourné waat ci entraînement am loolu moom nouvelle bu neex la bu retourné ci entraînement am nag man Bombardier bi ma gis mbuur nag ndey kumba bu retourné ci entraînement am xaw ma lu mu soxla lan la waaaw euh, Birame maa ngi euh, xeer na ba may dina dégg sa xeer yooyu ñu dem nag si nga xam ni toujours si Leewtoo point net li nga xamal ni mobile bi nga xam ni dafa yoroon avance Fallou Ndiaye si tournoi TFP bi depuis daaw bu mu retourné daal bu mu jógee États-Unis ñëw nee nañu daal delloo na avance bi nga xam ni yoraloon na ko Fallou Ndiaye waaw atte bor daal fay la ndey kumba atte bor fay te tig nokkin daal waa seen foti nokkiin a pogub moom daal bu fekkee ne da ko yoreel ah dem fa mu dem ne am loo xam ne moom la ko war a fayee dem fay ko dañ koy ñaax rek waaw ne xam nga ba ni mag dafa ñu ko doon wax mu ne boo amee Eh, dimbaleel ñi nga war a dimbale boo ñàkkee lebal koo xam ne mën na laa lebal waaye nag saa boo amee demal fay ko bul xaar sax mu fayeeku la kon mobile dañuy félic dañ koy félicité ci loolu eh, ñaanal ko nag ne ko xam naa ne jóge na États-Unis nag waaye nag bu ñëwee nag xam nañ nu mu ñëwee parce que moom forme bu mu dégagé macha allah eh, lamb ji daal bàyyi na ci moom xel bu baax a baax ndey Kumba ñu jeexalee ak Leewtoo TV foofu ñu ngi xamal ne dafa dalal ki nga xam ne mooy Reug Reug nee nañu daal Reug Reug sekk naa ak waxtaan wu yaatu ak ki nga xam ni mooy baabaka Reug ñëw na si euh, euh, combat bi muy waajal ak Bombardier moom daal neen lépp lu mu am daal bu rek Bombardier moo ko gënal laaj na ko tamit si digganteem moom ak ki nga xam ni mooy guy gi nee na moom ne du ko tontu ndax nan guy gi mbër boo xam daal joxul joxu ko cër respecté wu ko donc du mun a wax si moom waaw dama yaakaar ne loolu sax euh, respecté wu ko waxi làmb la rek xam nga mbër yi seen biir dañuy waxante lu ne alors que bu ñu toogee ñoom ñaar doo gëm ne sax ñoom ñoo doon waxante loolu waaye loo ci mënti dégg guy gi ak rëg-rëg combat bu dee du ma wax ak moom loolu xëy na waxinam la rek mais loo ci mënti dégg moom am na plein droit ne Bombardier la soxla te am na ay qualité yi mu ko daane ah moom am na secret yi xëy na secret bi du ko wax da koy jëf nit ñi gis ko waaye loo ci mënti dégg rëg-rëg daal ndey ko mbër mooy mbër moo xam ne euh, ku ko bañ daal yaakaar naa da nga ko ragal rek waaye moom maa ko mën moom boo koy wax ku ne euh, da nga far ak moom rek waaye daal ku mën da ngay daan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 Euh, di nuyu aussi Aïcha Faye madame Ndiaye ki nga xam ne tamit euh, mooy abu Gueye depuis États-Unis aussi maa ngi koy nuyu yaa ngi si biir. <laughs> waaw jërëjëf Ndeye Coumba xanaa di la nuy waat bu baax Fall Ndiaga Yaram waaye nuy équipe Leewtoo bi yàgg maar Talib Cheikh Béthio Thioune bi ñu ngi koy nuyu bu baax waaye euh, Mansour Thiat ñu ngi koy nuyu bu baax Sedo Aïda Diouf ñoom Fleur équipe bi yëpp daal DG ñu ngi koy nuyu bu baax baax waaye ñaanal Babacar Diom Euh, yàlla defal ko jàmm ak xéwal ak tawféex waaye nag nuyu nga xam ne mooy Sall Ndak suma jarbaat Ibra Sarr la ko yàlla pangool ah, ñoom Abou Ndiouk Amar Thiaw Ibra Dione Baye Fall nuyu nañ ñëpp waa Ngunjaan nag pay Dior xam nga dañoo ne ku euh, gëlëm boo ko yónnee daal yaa ko waaye ñu ngi nuyu tund bi yëpp fàttewuñu kenn ah Badou euh, le phénomène nuyu nañ ko bu baax waaye nag nuyu Ali Sène ak Ablaye Ñaax waa Ñaax ñu ngi leen nuyu baax a baax waa Xurwa ak waa Cakri Babacar ñi ñu ngi koy nuyu baax mbin biraan fàttewuñu kenn ndey kumba ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkk ci ñoom. félicitations au bu suba incha allah.